Lamine Lac de mi tey dafa mel dafa jël ay décisions. waaw. Lac de Guiers Eumeu Sène. Lac de Guiers Eumeu Sène combat bu nar a kaaw la. Eumeu Sène dafa jël ay décisions Lamine. moo gën a gàtt. réew mi xam nañ ko àdduna xam nañ ko. Lamine li ma naqari neexuma Lamine. la Lamine man si bàyyi sama waaw woo leen ci digg géew bi bëgguma tabbale bëgguma leerul arbitre na leer laaj leen bañ ñu pare nañ lay lay bañ ama seen nee na pare na Lac de Guiers ngay seeral ama seen ak biir géew bi oh Lac am na lu muy teg moo ñu wan ginnaaw noonu mbëru Abdou Dramé ama seen ngi taxaw di ko xaar pied gauche ak pied droit aja gaz arbitre sifflé na Lac de Guiers numéro 2 ak ama seen ngi demee Lac de Guiers pied gauche ama seen pied droite Eumeu Sène tàllal na loxo bi. pour réserver leetoo bi. sampu nañ. Eumeu Sène sampu nañ ñaari mbër yaa ngi leewtoo jamaïcain. Lamine P fii ci arène nationale tey dimanche 4 avril ak Gaston production. oh ànd ci ak waa Buzz Pro. waa Itala Pay. ak waa Leuz wala boog waa Zarak Leuz. Leuz Zarak Zarak vision Itala Pay Zarak business. Itala Pay Leuz ko. Itala les yaa ko moom. Bës Pro. oh Lamine. Lac de Guiers ak Eumeu Sène mi ngi doxal. ñaari mbër yi ñu ngi leew too Jamaïcain. Lac de Guiers ak ko jàkk di fas kanamam yokku ñaawaay. waru ndongo Cissé ba ngay leew too. di ci nuyu Ramdan. Eumeu Sène même na ko. bébé Modou Lo. ci nuyu lay bu def. Lac de Guiers nee na ko maa ngi fi gis naa la téye na loxo doomu ndeyu mbay guy gi. bëgguma lii ci lamb. mbër bul bàyyi sa nawle say loxo mu téye ñi ngi tam ñi ngi tamante baaraam mais Boy Lo ci loolu du ci mën a ñàkk. Eumeu Sène ngi téye Lac de Guiers ngi téye loxo Eumeu Sène. loolu du ci ñàkk. Lac de Guiers ngi téye loxo Eumeu Sène Lamine. Lamine. waaw. position bii nii. waaw. fii buñ fi bëree dafa arrangé Eumeu Sène. dégguma. ma ne waxal ci micro bi jamee ki buñ fi bëree dafa arrangé Eumeu Sène. ndax ñoom ñaar dañoo jege wante. te Eumeu Sène tey lu ko gën a war a mën a sonal mooy diggante ma ak Lac de Guiers am distance. dafa mel am na micro buy ramassé de lës Lac de Guiers rek Eumeu Sène jege nañ arbitre nee na leen bëre leen Eumeu a nga dox di uti Lac de Guiers bàyyi leen waaye dox bi doxu leen round d'observation du ci ñàkk combat mu mag la boo xoolee Eumeu Lac de Guiers nga natt seen distance de sécurité Lac de Guiers dafa bëgg Eumeu Sène jóg ku nar a songu ku nar a xeex ku nar a dóor Lac de Guiers nga koy xool ci bët. ñoom ñaar kan mooy songu maramam kan mooy dóor maramam. ana waa kër Lac de Guiers nu ñu toogee. arbitre bi waan leen ci biir géew bi. waa kër Lac nu ñu tooge arbitre bi nee leen bëre leen. lii taxul ñu woo leen. sifle waat na. Lamine bi sifle waat ñu ngi ñëw ba waykat dib na la waxee woon. doxee wet doxee wet. ñaari mbëri. songo mun naa am. Eumeu Sène moom bu déclenché du taxaw. xaw ma nag ndax day dem wala du dem. Oh, jàppante damante baaram. Lac de Guiers téye na loxo bi loxo bi ngay joxe. Lac téye na loxo bi Eumeu Sène bàyyi ko. Eumeu Sène bàyyi sa loxo bi ngay joxe. te nekk ko benn garde wàccee loxoom lii dansé la Lamine. Eumeu Sène lu mu def nii dansé la. buñ songantee ndax du jeex jamaïcain. Lac de Guiers jàpp na benn loxoom benn loxoom da ko bees. Lac dañu woon dañ koy cons Eumeu Sène di teg teggi. teg-teg gi nag na day lakke Lamine même xoof na moom Eumeu Sène Lac jël gar Lac de Guiers ak Eumeu Sène tànk bi mu tàllaloon Eumeu Sène moom la ko tàllalaat Eumeu Sène da ko jege ci biir ndox su tala mais Eumeu Sène instant bi ni mu taxawee song mënul am parce que dafa taxaw ba jeex waaw non Lac de Guiers ko sut Lac de Guiers est-ce que Eumeu Sène nekkul di ko ndax ci biir ndoxtu ndax Eumeu Sène ci biir bëre bi mu ñu ndoxtu pour dégala déggante arbitre nee na ñu bëre ndax door song du fi am Eumeu Sène ak Lac de Guiers lii xeñ neexul door song Eumeu Sène song lay waajal Lamine waaw Eumeu Sène laaw lay waajal wala song waaye buy laaw na xool ci lu muy laaw position bi bu ci laawee Lac de Guiers dina sëgg ci mbedd mu mag jaar ne bu ndekkee da koy tegg jamaïcain position bi ñu taxawee bu la ko ma seen jógee la dëgër rek te loolu en tout cas daal loxo droite bu Lac de Guiers moo gën a ubbeeku moo gën a jekku loxo droite bu Lac de moo gën a jekku instant bii nii. a ngi Eumeu Sène la dëgër ci biir bi songo amagul contact amagul baaraam Lac de Guiers numéro 2 ak Eumeu Sène dafa guñu benn activité ñoom ñaar Eumeu Sène xam ne war na mën a moo woon ginnaaw noonu jóge ci defet le 28 juillet 2000 le 28 juillet 2019 digganteem ak Modou Lo Lac de Guiers jóge ci ndam 13 juillet 2019 digganteem ak Boy Niang ci victoire oh Lamine Lac a ngi enchaîné. Lac de Guiers ak Eumeu Sène. ngi yëngatu moom Lac. yéen ñu nekk diaspora bi Lac de Guiers ak Eumeu Sène. Lac de Guiers du mën a song Eumeu Sène tant que ko mën a song. bi attan na arbitre bi soufflé na combat bi. arbitre bi nee leen bëreewu leen. avertissement. avertissement Eumeu jëflante leen bëre jógee fi. waaye du tere war nañu ànd seen sang-froid ànd xel mu dal waaye bëre ndax war nañoo ñamante nag ama seen Lac de Guiers numéro 2. lii am nañ benn avertissement. bis bu ñu nit mi taayee dinañ. bëre nañu ñaata minute. Lac de Guiers de ama seen ci biir géew bi. Jamaïcain Eumeu Sène moo daan moo daan kan ak kan. 21 heures 13 la Eumeu Sène daan. Eumeu Sène kan la daan. kan la daan Eumeu Sène waaw. Eumeu Sène moo daan Balla Gaye 2 ñaari yoon. waaw. moo daan Lac de Guiers mi muy jëflanteeg. waaw. moo daan Gris Bordeaux. waaw. moo daan euh, Souley Top. waaw. Eumeu Sène mi Boy Kaïré. moo daan Sallo moo daan Bombardier. moo daan Sallo moo daan Bombardier ancien roi des arènes. Simel Faye daan sax dañoo moo daan Ousa Sow. moog Simel ku daan. moo niil Simel. waaw. niil ak Lac waaw. Modou Lo daan ko ñaari yoon. waaw Boul Diagne daan ko. Uh-huh. Mafal Seye daan ko. waaye Ama Sène mii moo daan Boy Seye. Ama Sène moo daan non Mbaye Diouf Mbaye Diouf. waaw waaye Mbaye Diouf tamit nee na daan na Ama Sène. Lac de Guiers numéro 2 mi mu jàkkaarloo moo daan kan waaye tamit ak loo dégg. waaw Ama Sène mii yàgg naa ko bëreeg Mohamed Ali mi yor Lac de Guiers tey nee na contact nañu. daa yàgg dafa yaram bi dafa foq ci bëre. waaye Lac de moo daan kan jamaïcain. Lac de Guiers moo daan Yékini Senior waaw moo daan Tapha Tine borom takk sirip moo ko daan waaw Lac de Guiers a daan Issa moo ko daan waaw la de Guiers moo daan Boy Niang numéro 2 waaw waaye Lac de Guiers 2 moo daan Batika aha Lac de Guiers moo daan Babacar Diallo dëgg la Lac de Guiers moo bëre ak Baboy sans verdict moo daan Batika Lac de Guiers moo daan Père Tapha Gueye waaw waaye Lac de Guiers 2 ama sene ko daan ak Modou xarañ loo. damante baaraam. mu nii ak Ama Sène nii Ama Sène wàcc. wàcc na ràcc. Ama Sène ak Lac de Guiers. Ama Sène Lac de Guiers numéro 2 ñu ngi damante baaraam. bëre bi dem na. ñaari mbëri. Ama Sène day nuru day nuru ndaama taru ndaama. amateur ngeen amateur yaa ngi leen di Eumeu seen la askan waa ngi leen di xaar bëre leen jeexal combat bi tànku Lac de Guiers bi mbaa Eumeu Sène du ko jël la ngeen defoon 2010 defaat leen ko 2010 la ngeen defoon defaat leen ko xeex woon ngeen bëre woon ngeen waaye la ngeen defoon 2012 moom yaakaar naa ne bu ngeen ko defoon heure bi lamb ji jeex na jëflante leen ñamante leen bëre leen xeex loolu mooy jeexal lamb ji jàppante baaraam jeexalul lamb ji jàpp baaraam mënul tax ñu jox kenn victoire. déedéet. da ngay dóor mbaa nga song. boo moytul avertissement nga ci am sax boo xamul ñaata baaraam ngay jàpp. masara bi Lamine. waa ana Momo yaa ngi lewtoo. arbitre bi nee na Eumeu Sène da ko bëgg a koy waaj Mame nee na ma làmb ji mën naa mu daanu Mame Boye Diao moo la ko wax waaw wax ma ko sànq ci kaw Eumeu Sène ko Eumeu Sène Eumeu Sène tooñ ko la dox ci xanaa la dafa am la xanaa dafa am temps bu muy xaar pour jeexal làmb ji ah eh lag waay masana la dakar ci la jato ma ngi koy ji fi jaafa ji fi jaafa Lamine la dakar ama seen yéen ñuy suivre ci seen affiche ñaari mbër yaa ngi lewtoo jàpp tànk tij day ndax ndax day am wala dóor mu daanu day am la amoon 2012 wala 4 appui dama ko ragal ci lii seen jege wante bi nit mën naa song ñu ñu soroxal la seen tege wante bi jàpp tànk tëj mën na cee am seen tege wante bi jël ku dam arda mën na cee am la la sóoraale leen loolu laga nga yëngatu laga nga yëngatu Lamine waaw Lac de Guiers 2 ak Eumeu Sène ci biir géew bi Lamine eh waay wala bañ na taj kaani patal li moom lagu waay kaani tojagul li moom patal ma waay waaye ba léegi dafa guñ fi lu neex de Eumeu Sène Lac de Guiers numéro 2 jamaïcain waaw kii jóge Pikine kii jóge géeji waay écrit waalo écrit tay si nga Eumeu Sène Lac de de ar bi nee na leen bëre leen deflante leen soufflé wu ma attewu ma ñuuxu leen wante leen ngeen bëre ko bàyyi loxo bi ay waay bëre leen ah Eumeu tànk ba waaw Lamine lak lak tànk bi du ci may dara fowul de ay Lamine Eumeu Sène Lac de Guiers a ngi lew taw Lac de moo ngem ngemb bu weex bi Eumeu Sène moo ngemb ngemb vert blanc bi Lamine jàpp tànk mën naa am bare leen tëflante leen Eumeu Sène Lac de Guiers numéro 2 yéen ñaar kenn dafa ko fi ko mën a war a may ndam bi nit ñi est-ce que ñu ngi lay gis wala ñu lay dégg sax. attention Lamine si ñaari mbër yi kenn ñëw joxe sa bopp jébbalu. ñu ngi nuyu Moussa Ngingue ndax lii day sofal bëre. di ko ñaanal gudd fan ak wér mu yàq sa calcul wala nga toog bañ door na ku nga jug jug boo xam ne du sa sago loolu baaxul ci bëre. Mbaye Gueye mbër mi looy def def compétition sponsor yaa ngi ñaanal wér moom tamit. lan nee na ko ñëwal ci biir nee na ko ñëwal ci biir géew bi. nee na ko taxawal fi ñu bëree. Lac de Guiers 2 bëreel nekkal ci biir lambu ji Lac de Guiers. moo gën de baax na. bi yaatu na fa ngeen taxaw mën ngeen faa bëree. démb ne nee nga war ku génn saako yi dañ laa war a jox cinq avertissement. maa ko wax Lamine. saako Lac de Guiers numéro 2 Eumeu Sène ñi ngi damante baaraam. ñi ngi damante baaraam. waa lii xëcc fee am. xëcc. ñu ngi léewtoo ñaari bari ba léegi Eumeu Sène ngi yëngatu arbitre baa ngi ree arbitre baa ngay ree non arbitre bi dina ree arbitre daa jaaxle kat arbitre ree muuñ na arbitre bi ñaax na bi soññ na ñoom ñaar Lac de Guiers 2 Eumeu Sène 21 heures fii Sénégal 22 heures 21 fële ca Europe. non 3 2 heures de temps lañ ñu rawee léegi. bëri lóobu 10 minutes ba léegi dara xewul Eumeu seen a ngi seere làpp taake bi. Eumeu Sène mi ngi seere làpp taake bi ndax làmb ji day jeexe fii ci saaku yi. Lamine sànq am na loo wax maa bañ. ah nag ne bëri nañ lóobu 10 minutes. waaw bëreewuñu dañoo lewtoo. waaw lewtoo nañ lóobu 10 minutes. Lac de Guiers li ngay def nii jeexalul bëre bëre leen Eumeu Sène ak Lac de Guiers kenn bëreewut. bëre leen songoo leen kalken bi bëri na Lac de Guiers a ngi déstabiliser Eumeu Sène ci biir Leewtoo bi waaye Eumeu Sène na tekk di ko déglu Lac de Guiers Eumeu Sène bi jege saakuy de jamaïcain torop ah jege saakuy de may tuleen tëgg saakoy tarxis Eumeu Sène ree na ko Lamine tey la Eumeu Sène conseil la bëree tey waaw waaw tey déglu na waxi askan wi ndax ñëpp lañ leen a bàyyi a bi la dëgër waaw yëngatu bi la dëgër di yëngatu foog mu koy yëngatu parce que mën na ci jël avertissement waaw yëngatu bi daa yëgul ci kaw yëngatu mi dafa waroon a ànd ak ay réaction muy ay dal ay loxo muy dal eh eh ah, waaye la dëgër wala bañ na tey lan lay loolu mooy bul ma laal bul ma jege ay lamb waay avertissement mi-temps nga naan avertissement mi-temps ay waay mi-temps nañu ñaari mbëri mi-temps kenn laalul maramam ay nañu ñaari mbëri 15 minutes de balancement de bras waxal loolu barewu leen une minute déplacement de Bara yëngal loxo gësamu yëngal loxo rek a fi am bëri leen baa ngeen xeex xool leen si askan wi leen di seetaan lii defarul làmb waaye Lac de Guiers bu gars yi waxul la moom dana dana wanteer combat na bëree ci xel mu dal ci xel mu dal li ma la waxoon laa lay waxaat combat bi waaw. kuñ siy daan. waxal ci micro bi. kuñ siy daan. bu doon football dañ naan yaa dugal sa bopp. ku si bàyyi sa lay daan. loolu dëgg la. wallaay wax nga dëgg. Lamine. loolu kay Jamaïcain waxtaan nañ ci ba tas. kon jeex na. kuñ ciy daan yaay def lañ lay daane. nañ nañ ndax ñoom ñaar kenn du si ñëw. bëree Ardo Ardo xoola Ardo. Ardo Ngok. Ardo Mbaye est-ce que di nga faj Ardo. Ardo tey doo faj kenn ñaari mbëri niruwuñ ku bëgg a faju man na waaru naa. Adja Gass moo ma doon woonoon. Adja Gass borom Angleterre. borom Gambie. borom Gambie. amateur yaa ngi ñibbi Lamine. waaw dafa am na ñuy ñibbi de. Lamine amateur yaa ngi jug dafa ñaaw. ma ñuy ñibbi de. Ameth maa ngi dem ba Italie nuyu sama xarit Serif. ah. Serif borom Italie maa ngi koy nuyu baax a baax. kan ci. Serif Serif. Serif man. sunu xarit la doomu ndaa la mu ngi Italie ñu ngi koy nuyu mu ngi ñuy suivre en direct. Serif. maa ngi koy siyaar. borom Italie Serif maa ngi lay nuyu. Serif la tegee rama seen a ngi ba tey kenn songul. ba tey kenn dóorul. ba tey kenn daanul sa morom. commentaire ak ñoom. ñu bëree mbaa xeex. la 11 dañ ma tuddee lamb ju rëy sa Gàmbi waaw maa ngi woo sama xarit sama am di jàmm yi fépp fu waay mën a nekk ci àdduna maa ngi lay invité ci lamb jooju Sandial production moo ma ko tuddee diggante Eumeu Sène ak Soldaaru Baay waaye damay kontaan ci ñi nga xamante ne dañuy seetaan di di photo télé bi di ma ko envoyé xoolal Ibro Ibro Silla Italie la nekk xoolal mu ngi koy seetaan nee na nice ñu ngi koy ziar baax di ko nuyu waa kër Lac de Guiers loolu lan laa ko bëggee day naa si foofu rek. kër la a rek noonu Lamine. waaw. Lamine maa ngi nuyu Paate ñu ngi suma xarit. maa ngi nuyu Fada Gils. di nuyu Lekat bu Baara. dina nuyu France bu Banjul sax xam-xam. di nuyu El Hadj Keba ak Mohamed Soumaré. manager yooyu ma sa xam ñoom contrat bu yàgg ñu ngi toog di xaar ak ñoo gore. waa kër Lac de Guiers ngi noonu maa ngi nuyu waa Fass Ndiaga Thioye yëpp nag Lamine di nuyu si Sakho di nuyu As di nuyu sunu soxna Fatima di nuyu Alaaji Keba moom tamit Fass Ndiaga Thioye la dëkk maa ngi leen di ziar ñoom ñëpp ndax dëkk boobu dañ fa dem ñu defal ñu ay teraanga ñu ngi leen nuyu bu baax a baax a baax di nuyu Maodo borom Djilass sama papa maa ngi koy ziar Modou Mengane borom Djilass sama papa maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu Pa Ndiaw Faye boof maa ngi koy ziar baax a baax a baax Seex sëñ Samba Ndour Lamine sëñ Samba Ndour koy nuyu bu baax borom Touba di nuyu soxnaam nuyu sama papa sama torondoor Mamadou Mahdi Ibrahim ak doomam Cheikh Baye Mahdi di nuyu waa Kaolack yëpp. arbitre baa ngi ñoom. Cheikh ngi waaj sifflé deuxième mi-temps 21h28. arbitre sifflé na fa yàlla jëlee. Lac de Guiers numéro 2 Eumeu Sène. Lac de ko ci biir géew bi la ñu bëree. loolu loolu du obligation. Lac de Guiers waxuñu ko bëree leen. ci digg ci digg géew bi la ñuy bëree. Lac de Guiers li muy def du waree fa. Jamaïcain ci digg géew bi la ñuy bëree loolu kenn mënu cee jox mbar avertissement loolu. Lac de Guiers du mooy wax Eumeu Sène fu ñu war a bëree moom na def li ko war rek ama Sène def li ko war ku ci wàcc yoon arbitre bi wax ak yow. waaw na concentré wu ci combat am. Lac de kenn mënu koo teg pression. moom moom nag mu ngi tegee pression. boobee baax kii. kenn du ko yàqal làmbam bi waalo bañ na waalo waalo wala toj kaani patal limo ana père Ali foo tooge kot su jabong foo fete kot su jabong maa ngi nuyu Mariama ñaari mbëri borom Cincinnati xam naa ne mu ngi seetaan lamb ji Fatim Lo Aliou sunu xarit boy bawal Ousmane Cissé Atlanta borom Cissé construction maa ngi Lac de Guiers 2 Eumeu Sène maa ngi nuyu maa ngi koy ziar baax psychologue daawar mu ngi ñuy suivre fële ca Gambia Ndongo Cissé Lac de Guiers a ngi léew doo ba tey moo ko Eumeu di jox avertissement ñi bëreewuñu na askan wi wax ci wax ak ñoom Lamine li bokku ci luy doxal lamb Lamine promoteur bi dafa jëkkati xaalis fay leen. ku nekk xam nga ñaar xaar bëre leen jógee fi. xool arbitre bi ni muy sifflé xool bee jeex arbitre bi parce que Lac de Guiers pour mu song Eumeu Sène foog Eumeu Sène yëngatu foog Eumeu Sène bëri si kawam pour mu mën koo song. nañ xeex kon Lamine buñ xeexee buntu feeñ. buñ xeexee buntu feeñ. waaye xeexuñ bëree buñ xeexee mu daanu am. bu ñu bëree woon sànq ne ñaari mbëri contact nañ jàppante nañ waaye lambu ju bëgg a mat 20 minutes kenn songul moromam. Ama tooñ na ko Ama Sène door na Ama Sène na laaw na gauche ngi wàcc Ama Sène Lac de Guiers 2 ñi ngi damante baaraam ay Lamine ay Lamine am na ñoo xam ne bu doon ñoom lamb jeex waaw waaw waaw waaw ay Lamine du jeex amateur yaa ngi jooy fi sa dubal la du jeex du jeex ay Lamine Lac de Guiers 2 Eumeu Sène bëre leen. nga ne amateur yi. ñu ngi jooy fils de Double Less Balla Gaye numéro 2. waaye bu doon Ama Baldé tamit lamb ji jeex na lu mu am jël. bu doon Sa Thiès. lu mu am jël lamb jeex na bu yàgg nit ñi ñibbi nañ. bu doon Lac Rose. bëree nañ lu mu am jël. bu bu doon Tapha Gueye 2 sax lamb ji jeex na. lamb ji jeex na bu doon wulli ay bu doon wulli. bu doon wulli lamb ji jeex na bu yàgg ay mbiru Kara Mbodj boobu. ñaari mbër yaa ngi damante baaraam ba léegi kuy takarnaas. bëre leen analyse yi tey ñëwaat ci sa xel analyse yi nit ñi di def jàngat bi mbër nit ñi di am ci combat day ñëw ci sa xel. non day ñëwaat tamit. parce que Balla bi ma ne ko jàngatal ma combat bi laaju ma doomu géejewaay amateur bi laay laaj mbër bi laay laaj mënu ma sama doon laaj dëgg du ma bañ encaissé coup Eumeu Sène. mooy yoon. du ma bañ a jël coup Eumeu Sène ñëw di joxe boppam. ak dëgg yàlla mooy mën a picc bëri wala ñaar moom mu jël ay décision ba pare. bëre waxuma décision yoo xam ne day xaar bañ jëlloo ko moom. waaye lii dafa ñaax bëre wuñ xeexuñu. ñaari mbër yaa ngi lewtoo. Lac de Guiers 2 Eumeu Sène. Lac a ngi capp cappi rek. Lac a ngi ñam ñami. Eumeu ni tekk di ko déglu. Lac de Guiers roppalaan buy naaw lay def. roppalaan. Lac de Guiers ro roppalaan buy naaw. ñaara pulo. wàcc. Lac de Guiers ma sama nagu baay bu juree ma fay la. seetlu nga Lac de Guiers ni mu ñaqee ni mu ñaqee. gis nga bu ñu dalantoon bu ko bañ a dalan yii yëpp ay naaw. Pape Sarr waxoon na ko de nee na ko am humoriste. est-ce que amuñu hémorroïde ragal naa avertissement jeexal ko wala ñu nil de ndeysaan seera na a bu tàggat seera na a bu tàggat Lamine ba Gaston Mbengue du wàcc Lamine loolu mooy Gaston Mbengue ba gi sunaare mu dugg ci biir na toog rek loolu moom li ma wëtt wër na yem ci rôle ñeme na ko ñeme na lu ko raw li Gaston rek xanaa fàtte nga fàtte sos booy ñaa day wàcc rek rendez-vous bëreewul 8 juillet 2012 wàcc ah laaj nag li mu waxoon dëggal ko cons cons cons bi mu waxoon dinañ koy cons cons nañ ko nag ndax 20 minutes am na dara waaye cons dañu war a deflante Lamine ah. la dëgg rek ama seen yaram leen lu leen seetaan lamb ji métti na yàgg na xaar devant le ministre Matar Ba troisième avertissement ñëw leen ñu dagg seeni 15 pour cent ñëwal Pape Sarr nee na avertissement ko am hémorroïde bu ñëw pour chacun technicien bu ci am hémorroïde technicien bu ci am hémorroïde yi nga sonn de ama seen Lac de Guiers 2. bëree leen 3 avertissement. Lac de Guiers 2 de Guiers ak Eumeu teq nañ seen i 15 pour cent kenn du leen la de ñi kenn du leen ñaanal. bu leen kenn baal. Lac de Guiers ni ngay commencé Lac de Guiers numéro 2 ak Eumeu Sène bu ñu amee cinq avertissement lamb ji dañ koy tas wallaay sama ku nekk am na trois bu ñu amee ku nekk cinq lamb ji dañ koy tas kenn mës ta gis loolu loolu mooy cinq carton rouge ñaata carton rouge mooy jeexal man kenn doorul kenn songu lamin football ñaata carton rouge la ngay am match bi football ñaari carton jaune bëre nañ huit minutes ëpp na ko sax vingt-huit lañ kii woon carton rouge door a am bu ñu amaatee wa ah six minutes moo leen Eumeu Sène ak Lac de Guiers numéro 2 ngeen bëggoon forcé ñu bëre. bëre bëre bëre bëre. Lamine tey ñoo jël buum wërale leen ko ñuy jàpp ko defee. indi leen indi leen buum ci biir géew bi. wala ñu wàññi géew ñu jox benn. est-ce que duñ buum ak kenn ki mu dal ci keneen ki. noonu ñu indi buum rek buum. ñu wërale leen ko ñoom. ama seen Lac de Guiers numéro 2 ama wàcc. ama ama seen. songo wuñ xeexuñu bëre wuñu. day lamb mu ngi mel ni kuy jukki xam jukki ma seen Lac de Guiers numéro 2 eh eh eh waaw boobu dal na Lac de Guiers léegi rarement lañ koy gis. ku ci daanu ci ñoom ñaar yaa génne sa bopp lamb ji ndax mbër mënoon kenn mënoon na cee daanu sax du ñaar si ñoom ñaar dinañ si yow. Lac de Guiers numéro 2. ku ci si ñoom ñaar dinañ naaw si yow. booy xool ndax ni combat bi demee. Jamaïcain Lac de Guiers numéro 2 loxo droite bi gëj nañoo gis mu xeex ci. du ci boo koy jël tey mel ni loxo bi dafa néewi sax. am na am na problème. seetlu naa ko. dama ku xóoru soon a laaj nag. wala ma ragal ko koo laaj. Lamine waaw combat bi ku ci daanu. yaa génne sa bopp lamb ji. ndax jàppal na ñaari defar nga am tay ci loo xam ne amateur bi leen ko baal. da ngay damante baaraam ñaari mbër yi dañu bëree. lamb daanu da cee bokk. da ngay damante baaraam. vraiment waaw. jël na ku jël na ku. dabal jël jël na coup sànq de waaye man it daa de ma seen la gagère damay kay amateur Ardo Ardo day dem Ardo moom am seen pas méchant. waaye Philippe itam c'est pas méchant. fàttali na ma diggante ma Gris Bordeaux wala ko Gris ni woon tay vraiment mel noonu di ko fompal xale la ngi noonu jox leen Eumeu Sène xoolal Mamadou Aliou Ndiaye gis nga fii la jëlee coup bi waaw. da doon fayu da doon fayu. Lamine xoolal tànk yi ni ñu jegewante. Lamine nit di sa morom cër ba pare yàq sa lamb. mais niñ taxawee songu du ci yomb jamee kenn. songu bi xoolal songu bi nii xoolal nii ni ñu jegewante. oh sama réalisateur. arbitre dañuy wax Lac de Guiers bi maanaam ni mu def baaraam bi par yaakaar naa par nga war a jàpp wala par ñaata jamaïcain baaraam ab par ñaata lañ la nga jàpp ko par moo doon règlement bi bàyyi seen xuloo bi te ku ci sa morom kay fay leen am ngeen droit dóorante def leen ko ci biir géew bi Lac de Guiers Eumeu Sène Lac de Guiers ñoom ñaar daal départ gaynde arrivé bu mus rek laa bu arbitre di waaju soufflé nga yaakaar ne bu arbitre soufflé kenn lekk ma <laughs> départu gaynde arrivé muusi ñaari mbëri ci biir géew bi Madi Ñas Gueye bëre leen jugee fi xeex leen jugee ngi Leewtoo ba rek Leewtoo taxul ñu fay leen Leewtoo taxul ñu leen di seetaan Lac de Guiers ak Officina Officina ne ko songee doo fekk dara tànk yi tey comme élastique daa ngi xeex bee ko arrangé de xeex bee doon baax ci xeex nag ñaari loxo koy def jamaïcain te loxo droite bi du ko yónni loxo droite bi lim koy yónni mel ñaari mbëri xeexuñu bëreewuñu bëri leen jugee ko fi. Eumeu Sène Lac de Guiers numéro 2 Jamaïcain lay wadd lay wadd borom Sandaga nga xam ne tey ñu def ni Lamine moo ñu ci génnee mais Lac ñu ngi ci forme vraiment ak lu mën a xew mu ngi ci forme de day entraîné. Lamine gars yi laajte lu ñu sol. ah. Lamine lu ñu sol. waaw. ay waat borom Sandaga moo ñu fi génne. waaw ku ko bëgg da ngay def 77 525. waaw. 65 53. lay waat. lay bu def borom Sandaga lay bu def waaw. loolu mooy contact am. jamono ji dafa sedd gars yi laajte yére yu sol Lamine. aara ma sëgg ba xam. 77 525 65 53. loolu mooy numéro Laye Wade. loolu mooy numéro Laye Wade borom laay bu def borom Sandaga. ñu koy nuyu bu baax. ama seen ak la dëgër ci biir géew bi. waa arbitre est-ce joxe waat avertissement. bëre lañ wax ñun waxuñ ay feey bëre leen xoolal tànk yi. ay waay ana entraîneur yi te baaba Lamine ana entraîneur yi. lay déggee xeex. su bëggee naan am seen mi. Lamine ana entraîneur yi yor naan dina xeex de. Lamine ana entraîneur yi te baaba wax leen seen bëri sàcc tànk am na fi jàpp tànk tëj am na est-ce que arbitre bi du leen woo fàttali leen ne temps bi ñaari minutes moo ci des. arbitre boobu sama xarit la man moom a nekkoon Mbour. Mbour moom fekk naa ko Mbour moom ñu arbitre ak ñoo mën a lekk mburu mburu rek lañ man mburu gerte caaf ñoom ñaar kenn tawul jege wante nañ. amateur ah, waaw waaw ñii dañoo res dañoo respecté corona bi. corona bi lan. dañoo respecté corona bi Lac yaa ngi nelaw ci kaw tribune bi. waaw corona bi lañ respecté. mesure de barrière yi. amateur yëpp a ngi dañoo jël mesure de barrière yi. yaa ngi nelaw kenn yooxu. mi-temps encore. temps bi jeex lii xañ neexul. kër Lac de a ngi noonu. Lac de Guiers ak Eumeu Sène match waa xanaa ca suuf la lii de ca kaw moom Kër Lac du ci kaw de nañ leen bàyyi ñu bëree buñ tas lamb ji nañ bëree ba suba loolu dafa war a jeex ci lamb kilifa yi sax nga ñibbi gaston ngi wàcc gaston ngi wàcc waxoon naa la ko gaston ngi wàcc waxoon naa la ko Lamine si biir géew ba la jëm waaw dégg nañ benn waay. Lamine buy analyser combat bi. ah. kooku da doon analyser combat bi. waaw. nga li mu wax ni mu gisee combat bi bës bës wax na ni mu gisee combat bi. nu mu gisee combat bës na gisee combat bi. man du ma nu ma gisee combat bi nu ma gisee lewtoo bi laay wax. fii combat amu fi lewtoo fi am. nañ bëree nañ xeex. 30 minutes ndam demul ndam dikkul. 30 minutes songo wuñu jàppante ngemb amut Gaston Mbengue wàcc na Gaston Mbengue ànd na ak waa mais man man man d'accorduma ci lii Jamaïcain Jamaïcain man d'accorduma ci Gaston waaj wala Bira Sène waaj ay règlement ay règlement moo fi am règlement yooyu nañ ko appliquer mais ñoom duñu ay coach mënuñoo wàcc fii naan leen bëre leen def leen lii wala def leen laa loolu d'accord Lamine non askan wi dafa am loo xam tamit luy yàq lamb non d'accord naa non lii lii non lii nekkul moo yàq lamb mais man damaa d'accord rek ci geste gas wala Gaston Bana wàcc wala benn Bira Sène war a wàcc wala ku mënti doon ci CNG bi di wax ay règlement moo leen tënk règlement yooyu nañ ko appliqué du dëgg règlement yooyu nañ ko appliqué Pape Ndiaye dégg nga ci biir sonn wallaahi. nañu bëre Lamine dañoo war a bëre. Lamine dañoo war a bëre askan wi lamb dafa gëj am. wala tuuti tey tey sama président. lamb dafa gëj am Lamine. xoolal moom moo xoon maa lay solal tey jox na ma 5 mètres ma nga bureau ma bàyyi. Lamine. ñëw kër ñëw kër ba tardé. Lamine lamb dafa gëj am. askan wi yëpp togg di xaar lamb ji. lamb ji toll nii adduna bi ñëpp jënd seen code di mbëri nañu bëre delloo askan wi seen cër nañu bëre. ku ci yàlla jox ndam nga xam ne yow la jox ndam lii day dawloo sponsor yi ci lamb non non non dama koy wax dañu bëre bul a bëre non ah lamb ji nu ma ko gisee jamaïcain mooy nu ko ñëpp gisee Eumeu Sène waa Pikine lay déglu tey ñemewul def leneen lu ko waa Pikine wax. Lac de Guiers 2 Eumeu Sène da ko naxoon ci deuxième combat bi bugul Eumeu Sène naxaat ko moo tax làmb ji demee fu mu demee mais am na làmb fu muy toll dangay indi lu yaxee job ni defoon Yékini day bëre Bombardier Bombardier bañ ne du changé côté ñu pile face Yékini gagné teewul Bombardier bañ ba léegi waaye Yékini jël responsabilité am wëndeelu ñëw taxaw daan Bombardier mbër bu nekkee wóolu nga sa entraînement. wóolu nga li nga liggéey da ngay wane sa bopp ndax ndax ñoom dañu war a suuraale après tey pay per bi ñu ko nekk di ko seetaan ñi à travers le monde diaspora bi tey ñu ngi naan sax est-ce que duñu leen rembourser ci ay tooñ tout simplement parce que kontaan nañu yi mbëri spectacle bu ñuy joxe ñoom nañ suuraale ëllëg pour làmb dox première journée ñoom dañu war a wane seen bopp dëggal seen bopp bëre te yaakaar naa Gaston wàcc na te yaakaar naa mbër bu ci jël risque jamono yàlla dina la fay nga am ndam waaye bës naa la wax benn affaire de. bës lamb daanu de cee bokk. lamb ji de man lu ma bañ nga ñëw defoo loo war a def waaye ku ne lamb daanu da cee bokk ku si ñëw def li nga war a def daanu ci ngor dañuy xam ne ci ngor nga daanu waaye ñëw tey seen bopp bëree wuñu xeexuñu ñun rafetlu wuñ lii nañu bëree. waaye Lamine ama seen na moytu bëree public Lac de Guiers lu muy wër fajar ba léegi mooy ama seen songu ko te public baa ngi yëkkati fu mu toll nii di yuuxu. bu ëmm seen bëre ëmm seen na moytu bëre public wala bu koy def itam na ko teg ci temps. jërëjëf Beuz merci beaucoup Beuz demal eh xool ëmm seen la mu def am na mbir yu ëmm seen def de moo tax combat bi yàgg na. dama mer Lamine. mer jéggal leen rek. mais 5 minutes yu des 15 minutes laa koy def tey foog daan bu ma doon arbitre tey sport bi du yem ci règlement bi. mais kenn wax na ko sànq nee na fii ba suba dañ leen bàyyi ñu bëri. dañ leen bàyyi ñu bëri daa war a leer Lamine. dañ leen a fay dañoo war a yokk temps bi dañ ko yokk loolu mooy yokk. dañ ko yokk lii leçon lay doon. na arbitre bi yokk 45 minutes na arbitre bi yokk 45 minutes Lamine. ñoom ñaar da jël la am. dañ leen a yokkal amateur yi sonn 2012. ama seen tànk ñu bëree 2010 match nii ñu war a bëree waat nii mu nar a match nii lan mooy problème bi dañ leen a fay xaalis lii bu kenn amee ndam sax neexatu parce que amateur yi xaaruñu leen woon fii ñu waxante dëgg yàlla tax Diène Kaïré Modou Anta dañoo ñëw dëggal seen bopp bëre xeex Diène Kaïré daan ko mais ñoom lan mooy problème bi nañ bëre kenn daan kenn daanu du daan rey affaire bi du guerre ndam li Sénégal la yem nañ bëre kenn daan mujjee. lamb de amul daan rey gàcce ngalaama Diène Anta xeex ngeen wala boog bëre ngeen bëre bu rëy. sunu xarit ci plateau bi borom dara loolu la yàlla dogal. maa ngi lay ziar jër booy geet ndar sama xarit waaw sama xarit nga moom lay ziar bu baax waa ndar man dama ngi ma làmb ma nga ma nga ma nga ma ak Golbert ah a baax noo ko gisee non combat lak moo war a bëre waaw lan moo tax lak moo war a bëre ah maa la daanu yaa na xale màgg na kay war ñu confirmé war na xale màgg na loolu laa gis quoi bu dee jamaay nga ma wuyu. Golder ba loolu laa gis. ah Baye Golder dañoo war a bëree Golder. dañoo war a bëree. ndax lii ruus lu doon ci lamb ji toll nii. at bi yëpp di daanoon yaay xale. Ah, yaa war a ñëw bëri war a def xale. xam nga ay sax day seere combat bi rek. guerre ne mën a dë. waaye nag fii bëree bu tax ñu nii amul fii bu bi. est-ce que ku daan sax lamb ji dana dana dana maanaam victoire bi dina la neex victoire bi est-ce que tey ku daan wala ñu jox ko nit par avertissement. ku daan doo sibile waaye ku ci daanu tey jii génn la. nga waxee. waaw moom maa waajal lu rëy ndar incha allah après Korité. nga tëgg lamb. si waaw. dama jël dama ko mel ne quoi ah armée 3 la armée 3 la diggante France ak Leket lépp dana ñëw de xarit nga dama laa bëgg waaw waaw dana ñëw de inshallah sa ata maa ngi nuyu ministre fi tan sport sa ata waay baaji jaar jatak nuyu national non non non sa attaque sa goñ sa geñ inshallah loolu léegi loolu léegi maa ci bëri kii quoi bàyyi bàyyi ana waa Yara ay lii xëñ neexul temps bi jeex na ama seen ak la de guerre nii laat nañ ana waa Yara ñu ngi lay bëgg baax di la ziar baax maxi nii temps bi jeex na temps bi des na de des na de. deux minutes des na. ku la wax loolu. ah ah ndax dañuy xeex ah. Lac de Guiers 2 Eumeu Sène. Lac de Guiers numéro 2 Eumeu Sène. Ardo encore. waaw day day naaj.

Serigne Ndiaye laa nuyu suma xarit suma ennemi di nuyu Baye di nuyu Masada di nuyu suma doomu ndey Balla Gaye 2 fii si Double Less sama xarit sama doomu ndey Seydou Boudi Bathily Balla Gaye 2 fii si Double Less. si combat la combat bëgg mu daan mu la faral di yàlla danga béy di xañ wërsëg da jamee ngeen. Moussa Ndoye Sa Thiès. non combat la mais Moussa dam dànk quoi waaw dam dànk parce que Sa Thiès moom. amen di ko mu gànnaar mu ngi ndax di def combat am solo la ko fan la toll ci làmb daal nee na après korité bi lay tëgg après korité bi mbapat ngay tëgg wala bëri dóor Babacar mbapat arène ngaan mboy stade Mor Wan moom dëgg dëgg làmb arène national lay la di tëgg stade Mor Wan Lac de Guiers ngeen am noonu kër Lac de Guiers ngi noonu en direct ah ok kër Lac de Guiers ay ah, yéen dafa métti mais jamono Sénégal li leen la moon quoi dafa neex làmb dafa neex quoi vraiment Guiers numéro 2 reetaan na ma ne ko reetaan na souris ne pleure pas Gandar Gandar Gandar waay nga xalal lamb ji demal ci biir géew bi dawal dawal wër lamb ji di léegi promoteur la dootul mbër ñoo xaar nga ñëw Dakar nga ñëw Dakar tëgg combat. Lamine ñaari mbéy ak ci biir borom bi ma ko boo gis boo xoolee xol ba nga seetlu rek waaw. damaa ñu rëy incha a arbitre sifflé waat na. Lac de Guiers numéro 2. Lac de Guiers ak Eumeu Sène. waa ko ndax ku mu génn saako sax nga am ndam par avertissement ah ah. comme rek. ñaari mbëri. la kenn sar sa moromam mu génn saakoy. waaw. da am ndam par avertissement sax. man daal fii moom dafa mel ni moom seen. waaye est-ce que fii amul fi nekk liy fere na ñaari mbëri. la. mesure barrière rek. leen. corona wàllu ko sa morom. depuis Brésil maa ngi lay nuyu. kon bu tolérant la. parce que normalement lamb ji waru woon a egsi fii. cinq avertissement yooyu waroon na fekk mu mat bu yàgg. vraiment mais lamb ji riis na. maa xam nga vraiment lu toll ni drapeau. aja sur le avril. ñaari mbër yi. li ñëw uy si rek. bàyyi seen lépp. waroon nañoo joxe lu. vraiment. waaye léegi drapeau ku koy jël. drapeau bi nañ ma ko jox. ma yóbbu ko Loro. wallaay maa ngi nga daan ma rek xam nga mën a daan. nañ ma ko jox rek ma yóbbu ko loola ah. waaw donc waaw Aliou Yarkee amul si attaque kay attaque rek ay waay lamb ji waaw Lamine xoolal tànk yi. nga ne xoolal tànk Eumeu Sène. seen tànk yi ñu jegewaat tey combat négo combat négocié dëgg daw na song daw na song daw na song ak dëgër waay bëre leen arbitre bi bu leen faale bëri leen nee na ko demal Ardo Lac da koo bëgg a demloo Ardo par force loo wax booy gentar waaw Lac bu lay sam yi bëre ah arbitre arbitre arbitre waaw waaw waaw mu ngi naaj instant bi dañoo tàng moo tax deret bi. deret bi force muy génn nañ bëree. et puis nag dafa mel ni protège am ko ëpp ah. waaye fii kenn foofu nañ bëree ñoom ñaar yëpp nañ bëree. bëre moom amu fi. bëre amu fi xeex amu fi. instant yii moom lan koy bëre moom. ah instant yii lan koy attaqué. dégguma. instant yii lan koy attaqué. wala instant yii instant yii muy bëre quoi vraiment muy bëre quoi moom di dëgg rek instant kenn attaqué wu arbitre mbaa duñ daanu sa kaw ma ne ko arbitre mbaa duñ daanu sa kaw ardo laamu ji day nuyul jamaïcain laamu ji day nuyul maa la ko wax deret dafa tàng instant bi yaram bi dafa tàng ndeysaan gisoo jàpp bu ndaw la mais dañoo tàng instant lamb ju mag ndar incha allah damay kay maa lay invité dégg nga tamit aussi maa lay invité borom baax nga quoi vraiment dama lay bëgg bu baax di woo monsieur le maire Mansour Faye bu jàppale ma ki su mel ne Bougane Gueye Dany dama jàppale Déthié Fall Cheikh Bamba Dieye xam nga Latir Fall maa ngi doomu ndar yëpp daal As Mansour Mbaye maa ngi woo mu jàpp si bu baax gërëm suma xarit nag Bekaay Mbaye maa ngi nuyu bu baax nuyu suma idole Abdou ma quoi vraiment ah. di nuyu Baye xam nga di nuyu Balla du nuyu Boury Bathily du nuyu waa Yaraax ah. du nuyu aussi Lamine maître Ibrahima Diop notaire maa ngi ko nuyu baax maître Ibrahima Diop notaire maa ngi ko nuyu Sadou Ndar yëpp di la bëggee vraiment waaw merci de Sénégal ah Ligue TV ah avec Lamine ah danga waaye. dafa tàng instant bi deret bi lu koy génne foog ñu def ki foog ñu def ki lu ko mën a arrêté wala ñu taf ko rek comme moom tàmm na taf. waaw daf ko ala Gris Bordeaux kooku mooy Abdoulaye Dembélé bu sunu lamb Abdoulaye Dembélé maa ngi lay nuyu yaa ngi en direct ci seen avis ko Lamine Seck nuyu naa la sama doomu ndey moom promoteur euh, Jamtu production di rafetlu liggéey bi nga xam ne yéen a ngi koy def depuis le matin. mel ni Lac de Guiers ak Eumeu fi leen nit ñi doon xaar dafa mel ni fi ñu leen fàkkaloon fa lañ taal. Euh, dafa bëri calcul dafa mujjee nekk combat tactique combat bi waroon na nekk combat technique mais dafa mujjee nekk combat tactique parce que Lac de Guiers 2 euh, boo xoolee Eumeu Sène nu mu taxawee Lac dafa mën plaquage te buy plaqué plaqué droit lay def te tànk droit bi. Eumeu Sène tànk boobu la jël bàyyi ko si ginnaaw léegi Lac de Guiers koy bëgg a provoquer euh, gauche pour que mu am déplacement tànk bi ñëw ci kanam pour mën ko plaquer Eumeu Sène xam na ni waa ji loolu la bëgg mu bëgg di bëree côté euh, vers sac côté parce que Eumeu Sène dafa bëgg mu ñëw bu ñëwee bu sàndeeku bu bu rek euh, mun na ko mun na indi laaw bu indee laaw la dañuy jegante te bu buñ jegante bi dañuy am jàppoo te bu ñu amee jàppante rek moom bërekat la day bëre ci tànk looloo tax combat bi mujjee métti vraiment malheureusement déception la parce que combat bu bëree calcul moom nii lay combat bi bu jeexee ci match nul kan la ñuy yedd ci ñoom ñaar mais Lac de Guiers parce que euh, lii mooy ñaata mat nulam troisième match nulam su ma juumul donc bu amee match nul la ñuy naan lii euh, c'est le roi du des match nul malgré que tey gis naa ne benn instant sax jéem na song parce que le fait que nga topp ëmba seen euh, si côté am nga pousse ko ba si wetu saako yi ça veut dire que euh, au moins pousse na quelque part ëmba seen nag dañ ko yeb waa Pikine na buñ la yebee parfois ñu bëgg duñ ñu duñ la bàyyi nga bëree ak sago ak li nga xam ak li nga man loolu tax combat bi ëmba seen dañ ko waroon a bàyyi mu bëree li mu xam lu mu tàmm combat jànk lu mu am ñu xam ni noonu la demee mais boo ko teeloo nga ne du defet la jógee day day daal di métti daal dafa mel ne tolérance am na ci arbitre yi parce que booy xool lii jeexaloon na combat bi parce que heure bi waroon nañu am cinquième avertissement waaw tolérance am na ci combat bi au moins mënuñu tolloo tout le temps avertissement xam donc euh, gis nga bon nii la mën a demee euh, Lac de Guiers euh, dafay calculer de trop mais indi na état indi na combat rapproché wóolu na tamit que euh, bu amee songo am na doole bi ko mën a téye mais Eumeu Sène lu ñu ko bëree a ko dafa mel ni lu ñu bëree loo euh, Boy Niang Lac de Guiers 2 euh, doo leen défensif loo de trop parce que ay technicien la am nañ lu nekk ci yan seen yaram waaye mais ba bàyyi ñu bëree pour que combat bi mën a neex waaw kooku mooy Abdoulaye Dembélé bu sunu lamb Dembélé yéen ñi bind ci ah. lamb ndax li seentuwuleen woon ko Ibakan seentu na ko Ibakan mu ne ma combat bi mu def ma euh, euh, film di combat seen premier combat mu ne ma combat bi nii lay demee day yàgg de gudd ba pare nag mu ne ma Dembélé jàppal ni dina am ku si nàcc ku si nàcc ku si gaañu mu ne ma sax euh, mun na doon am ma seen parce que dafa gaaw a nàcc donc moom sentu na li li ban maa ko sentu parce que man jàppoon naa ni avertissement waaw am na quatre avertissement Eumeu Sène am na quatrième avertissement que euh, mu am déplacement si côté am loolu day wone ni moom mooy moom moom mooy reculer loolu waru ko woon nangu dafa waroon na fixer si benn côté loolu nag euh, loolu mooy problème Eumeu dañ ko waroon a bàyyi mu bëre ak xelam parce que kat la Lac de Guiers nii lay def Lac de xëy na bu changé woon bëre du baax ci moom malheureusement. noonu la noonu la demee. Eumeu Sène am na 4 avertissement. Lac de Guiers am 3. dana waaw amul ku may gis. agal mu ñëw di songu di bëre daan du ci am. walaay Jamaïcain muy daan moromam contre kaa lay doon. Jamaïcain ñëw joxe sa bopp ñu daan. Jamaïcain lamb lambu gaay nañ ci jeey ay gis naa lambu jeeg gis gis kenn gis ci dara. ay dóor mu daanook ay fàq la mu def kaat à peeg. wax nañ ko mooy ta sur le terrain la. lamb du diggante du ay seetu day am ay lii am. lamb si biir géew la. Ah, moo tax parfois boo ñëwee da ngay gis scénario yi nga xamante ne kenn xalaatu ko mais sentir naa ni vraiment tey euh, match nul arrangé wul Lac de mais am na tuuti engagement mais lu muy calculer ba tey moo des. dafa waroon a songu wane boppam parce que Diène Kaïré tey moom moo bëggoon combat bi war c'est vrai war na songu mais avec intelligence peut-être loolu lay def Eumeu Sène nag luñ ko xaarloo de trop du du du du bëreem loola tax tey jii ni bu ñàkkee au point du ko arrangé day am déception loolu mooy gis-gisu Abdoulaye Dembélé lamb ji bu jeexee fii Eumeu Sène mooy ñàkk xel nangu na lamb ji bu jeexee fii la dëgër la jox man na bëggoon naa ñu tappaloo bëre jeex na lamb ji jeex na bëggoon naa ñu tappaloo bëre ñoom ñaar jox nañ la ak victoire Eumeu Sène am na déception Eumeu Sène am na déception mais amateur yi tamit am nañ déception Abdoulaye Deme ñoo njëkk am déception te duñ ko baal peut-être Lac de mais Eumeu Sène am na déception parce que musul bëree nii Eumeu Sène saa yoo ko laajee lu muy wax lu muy bakko man combat jànk rek laay bëree mais bii nii euh, dañ ko xaarloo dañ ko on l'a rendu défensif par rapport à l'adversaire loolu lañ defoon booy Niang 2 ba loo li li am euh, ay jàmbale booy xool même ñi ci seen yoon nekkul ñi ci seen yoon nekkul sax nga leen doon tàllal loxo di leen laaj seen xalaat di leen laaj seen xalaat ci ci ci ci combat bi dañ naan la